saako soble bu paasee ba ak vingt mille rek jéggi na dayoo. mais prix soble fi mu egg nii dafa jégg doyo franchement du dëgg du yoon. soble bi doon lu cher loolu. teg si raar. sac bi di jar sac lu ëpp ñetti junni di ñu xamal. jaaykat yu ñu fekk marché gël Tapée bu Parcelles Assainies. prix dafa flambé prix moom fu mu egg actuellement nii prix vraiment jéggi na doyo puisque ñun déjà kilo soble bi ñoo ngi koy jaayee 700 entre 700 800 francs 700 francs sax boo ko jaayee yow ndax di nga francs 16000 17000 francs loo koy jaayee. ñu ngi dikkaat ci lu sabab li ni mel. puisque bu ñu xoolee Sénégal yëpp benn groupe bu nit ñoo leen di tënk ci kii bi nii nañ leen jàppale nañ leen jàppale nañu bloqué soble importé bi mais léegi bloqué nañ ko. bloqué nañ soble importé bi léegi saako soble ñu ñu koy jaay ay 16000 francs soble bi fii lañ koy bayee pa dugaluñ ko bateau dugaluñ ko gaal mais a problème souvent nit ñi bu ñu comprendre dañu wax ne commerçant yi dañu yokk produit mais commerçant bi yàkkamti na nga yokkal nga tegal ko ñaata nga yokkal ko mu jaay la. di àddu itamit ci li nga xamante ni mën na ko saafara ba ñëpp gis ci seen bopp. bon pour réguler secteur bi comme on dit man je me dis ni gouvernement bi li mu war a def def na ko mooy lan mu bloqué importation bi bloqué nañ ko jox leen benn temps pour ñu jaay seen produit mais gars nañu sérieux waaw suuf si yaatu na ndox mi bari na buñ ko encadré. ubbi ay tool xale yi nekk fa ñu protéger leen ñëpp mën ko jaay Sénégal yaakaar naa dina soqaliku teg ñoom ñëpp dinañ am jàmm ñëpp kenn ku nekk gis sa bopp. ñu ngi ñaax nguur gi mu bàyyi xel boobule secteur ndax yokkute bu ñu fa nemmeeku doon na lu jéggi dayoo di leen ñaan itamit ñu teg fii ay moyens ngir yombalal conservation produit bi ba rek ñëpp mën ci gis seen bopp.